abonnez-vous sur Scène pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam. est-ce que ci noonu nag la ki nga xam ne moom mooy bàjjan Fatima daal di mer moom bàjjan Fati bi mu meree dafa daal di continuer rek jubal dem këram jamono boo xamee ne ki nga xam ne mooy ndumbe dab na ko di jooy ak di ko saraxu nan ko bàjjan bàyyi lépp mu sedd nga comprendre sama borom kër bi nga xam ne mooy jibi bañ koo topp ci dara bàjjan ne ko amul benn problème yow doonoo ci dara xam naa ne sa yoon nekku ci li entre man la ak moom noonu mu ne ko baax na mën ngaa dem noonu nag la ki nga xam ne mooy ndombe daal di tourné ginnaaw woo xam ne moo ngi doon jooy jooy yoo xam ne àggu ci xolom bi bàjjan faati demee rek mu daal di muuñ daal di biiñ continuer aw yoonam ba ñëw ci néegam fekk boroom këram jibi mu daal di toog mu ñëwee xool jibi gis jibi ni mu def kanam ki mu xam ne jibi jaaxle na dëgg mu noonu bàjjan faat yi ki nga xam ne mooy ndumbe boog daal di taxaw xool jibi ba mu yàgg mu ne ko lan moo xew jibi ne ko xamoo lan moo xew mu ne ko ah xaw ma lu xew di moo tax ma la koy laaj dama gis nga nga may xool xool xool bu doy waar bii wax dëgg yàlla de li nga wax ak bàjjan faat yëpp uus naa ci commencé di wax jëbi ne ko damaa bëgg nga noppi tëj sa gémmiñ ki man ndumbe ba mu ànd ba ma yàlla booleeg yow yàgg na trop ba ma dalee ànd ak yow yàgg na trop mais dafa am jikko yoo xam ne dama ko gis ci yow mu naqari ma trop te jikko yooyu vraiment jikkoy naa fekk ndax man lu ma gëm rek laay wax mais lan moo tax nga wax ma li mu wax ba pare ñëwaat di def comme si yow sa yoon nekku ci yëgoo tinoo te fekk lépp yaa ko def ndax yaa moo wax li nga xam ne moom ma naqari ci moom ba tax ma woo ko di waxtaan ak moom te nag dinaa wax benn affaire de faat Faati xam naa ko bu baax ku am fulla la ni ma amee fulla man noonu la amee fulla ndax ñoo bokk benn way jur xamante nañ bu baax man ak moom ba ñuy nekk xale juboo daawuñ ko def dañ daan coow rek dafa yor tàngoor ma yor tàngoor ñun ñaan ñëpp ñoo yem te gis nga lii ma ko wax nii mën na ma cee mere ati at ndax mën na ñëw ci kër gi di ma di di di dem ci samay rakk di wax ak ñoom te loolu ak féewaloo lay andi su boobaa la nga doon defar sax day gën a yàqu ndax au moins joxoon na ma cër daan na wax ak man daan dugg ci sama néeg di ma nuyu mais fii mu toll nii bu demee dana wax ak jëkkëram diw te jëkkëram xam nga ko man ak moom gis na niñ mel mënuñu def man ak moom doom doomam sax moo tane ndax moom am na yar waaye daal li ma bëgg mooy yu mel nii bu ma ci dugalati tey nag def loo nga ma li may def loo ba pare ñëwaat def semblant mel ni yow mel ni daal yow defoo dara léegi nag li ma bëgg mooy bu ma defati lu mel nii ndumbe ne ko ah jibi yow tamit jibi man su ma defut lii lan laay def xanaa du yow yaa ma wax ne ma loo gis ci kër gi loolu la neexut wala loo xam ne du yoon ma wax la ko ma gis lii xam ne du yoon ma wax ko jibi ne ko ba ma lay wax loolu li taxul woon loolu mën nga koo xool ci waa kër gi mais pas Badiane Fati Badiane Fati moom wax dëgg yàlla soo ko ci boolee rek day doy waar ndax dëkku ci kër gi dafay sëy sëyam waaye ci kër gi la bokk ci njaboot gi la bokk da fexe di ma dimbale sama diggante ak nit ñi ak juboo di am sama diggante ak ñoom ak rafetoo ndax ñëpp jox nañ ma cër ñëpp def nañ ma kilifa waaye yu sew yi ba mu ciy dugal dina waral nit ñi gën ma jox ginnaaw ba noppi itam lenn ci nit ñi nga xam ne samay njaboot lañ maa leen yilif dana am na ñuy doxee ak man nga xam ne jibi moom wàllum kilifteef wàllum kilifteef daf koo bëgg lool. noonu lu mel ne ko baax na amul jafe-jafe ni ko waxee noonu laa koy defee incha allah noonu la ki nga xam ne mooy bàyyi ji bi daal di wax jawat ji ne ko man dey dafa am beneen mbir moo xam ne fan yii dafa nekk sama xel ma bëgg cee waxtaan ak yow te ne loolu sax waxoon nañ ci waaye dañ ciy waxaat rek mu ne ko ah mbaa jàmm la mu ne ko toogal noonu ki nga xam ne mooy ndumbe daal di toog mu ne ko bul fàttaliku boo fàttalikoo ne sunu doom bii nga xam ne mooy sunu taaw mooy ki nga xam ne mooy moor. dama tuddee ko sama baay Mor Cissé maanaam góor gi Mor Cissé mi nga xam ne mooy baayam dañ ko daan wax góor gi Cissé moom la tuddee xale bi xale bi nag fi mu toll nii am na ñaari fukki at ak ñeent maanaam vingt quatre ans mag la du xale fi mu toll nii magam jëmm la parce que léegi mu mag am vingt cinq ans te ñoom dañoo farataal mbirum teel a am soxna maanaam teel am soxna dañ ko nekk loo xam ne lu ñu farataal la comme xale bi moo ngi jàppale baayam ci bitig bi te baay ji moo ngi moo ngi commencé jëm mag. yaay jeeg baay ji daanaka ñoo mag ci kër gi te niki noonu itam baay ji imaam la sëy yi am ci koñ bi yu bari moo koy takk te day soññ xale yi ñu ngir ñuy takk soxna kon moom moo ci war a jiitu loolu nag nekkoon na benn digg boo xam ne dafa newoon ci kanamam jaaxaloon ko lool. noonu nag mu wax ki nga xam ne mooy soxnaam dumbe ne ko man dey mbir moom ma la doon wax dafa maa jaaxal ndax dama bëgg ñu woo ki nga xam ne mooy moor waxtaan ak moom. ndax jot na ngir ma am soxna ndumbe ne wallaahi alazim loolu nga wax de moom lay tëddaalee moom lay yewwaale fan yee sax waxtaan naa ci ak moom laaj ko ne ko ndax moo gisoo koo bëgg ngir ñu may la ko muy ree daal di muuñ xam nga moo dafa bëri kersa di sëgg di muuñ ma ne ko sa muuñ gi ngay muuñ waxoo ma déedéet kon am na koo gis bi ma ko sonalee ci la ma xamal ne ma am na ko gis waaye nangu maa wax kan la xëy na yow boo ko laajee ma toog nga toog ñu wax ko nag li nga xam ne mooy farata dinañ wax kan la bëgg su ko defee ñun ñu doxal ko ci noonu bàjji na ko ah wax na la loolu mu ne ko waaw wax na ma loolu de mu ne kon naggal dem wooye wooyal ma ko noonu la ndumbee daal di demee si bitig bi daal woo doom ji nga xam ne mooy moor ne ko moor ñëwal wuy sa baay noonu daal di ñëw daal di sukk nuyu baayam toog ci suuf papa ji ne ko moor man dey sama doom nga dëgg yàlla doom ju déggal baayam nga te itam bëgg naa ci yow loolu kontaan naa ci ni ngay doxalee ndax liggéey bi nga xam ne man maa ngi ko war a def yu ci bari yaa ma ci jàppale te nag yaa ngi jëm si mag magee la ngi dugg fi mu toll nii mën naa ne ba nga waree am soxna yàgg na ba ngi ca tollee yàgg na yàgg naa laa junj nag waaye xam naa ne kersa moo la jàpp ak yar ba tax nangoo maa wax lu leer tey it mosuma laa gis nga indi fi xale bu jigéen présenté ma ko ne ma moom nga bëgg wala lenn ndax mbir yooyu ma la ci. waaye nag comme toll nga ci ma di la ndax dafa am koo gis koo bëgg walla danga nga bëgg a bàyyi rek nit ñu xool tànnal la xool ku baax ñu tànnal la ko ngir nga takk ko xool ci benn ndax fi mu toll nii jotaay bii may waxtaanee ak yow nii su ma fi jógee dinaa xam fi may li may def maanaam soo ma waxee lu leer dina nekk loo xam ne dina ma gënal lool su fekkee da nga ne ma diw nga bëgg ma dox ci su fekkee waxoo ma itam ne ma. dangaa bàyyi lépp sama loxo rek dinaa jug xool ci sa waa kër nijaay xale yu bëri na ay xale yu baax ma tànn la ci kenn noonu ki nga xam ne mooy doom ji di moor daal ni ko ah papa man dey li nga wax dëgg la ndaxam li nga wax man tamit nekk na sama xel mbirum soxna lu ma yitteel la teyit lu ma ñor la waaye nag wax dëgg yàlla li tax boobu ba léegi gisoo ma ma indi fi kenn wala ma wax la lenn ci mbir yooyu te yàgg nga ma junj mooy dafa am ko ma bëgg lool waaye nag ma jàpp ne day soxla négandiku papa ji ne ko négandiku négandiku kay soxlawu ko yow toll nga ci am soxna mu ne ma non du ci man waaye ci ki ma bëgg la ki ma bëgg laa ragal ne xëy na at yi moo moo tollagul fu mu war a amee soxna papa ji ne ko loolu du problème su dee mm, am na fukki at ak ñeent jàpp fukki at ak juróom. ba juróom benn sax ci jigéen gëm naa ne waras na koo mën a maye daal di joxe ay xisaam ak yëpp ak ay addisam ci mbirum teel la maye jigéen ngir mu sëy baax gi mu baax mu ne bu fekkee ki nga gis kay ku mën a nekk la te askan weeg yëpp compatible na ànd na daal di wax ay mbiram wax a wax ba pare noonu yaay ji ne ko waaw yow kay moom su ne yow rek la déglu yaa ñu mën a wax lu leer nga ñu xam kan nga bëgg. moor neen a ah, papa damaa xaw am kersay wax leen ko nag ndax xam naa jege nañu trop te jege gi mu ñu jege itam moo tax ma xaw a rus noonu mu daal di sëgg papa ji ne ko looy rus jege kay moo baax bu dee ko jege la kay loolu kay moo gën foofu ndax pour ñu liggéeyante ko lu yomb lay doon yow kay wax ñu rek noonu moo daal di xool yaay ji xool papa ji daal di neen Fatima laa bëgg papa ji ne ko Fatima man mu ne ko Fatima men Fatima Cissé doomu papa Habib ak May noonu papa ji ak yaay ji yëpp daal di muuñ mel ni daal wax ji dafa neex seen xol dafa sedd seen xol mu ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin ki nga xam ne mooy ndumbe itam daal di kontaan ne ah daal di wax ci xelam nag daal di ne ah fi mu toll nii day yàlla moom mooy door defal ndam nag ndax sama taawu góor bii sëy ak Fatima mii loolu day ndam la ci man sama ndam li njëkk ci kër gi mooy loolu daal wax ci xelam de dal ne ndax Fatima xale bu taaru la bu yaru la ba noppi macha allah silwise na tubaab bu ñuul la ne xel lool nag xam naa ne ko amu avenir la te yaay ji itam macha allah borom teraanga la te xam naa ne bu ma ko seqee ak moom du ko rëccu noonu mu ne bàyyi ji itam ki noonu te mbokk gi benn la te itam lépp ci benn kër gi lay doon. mu wax ci xelam daal di wax alhamdulilahi rabbil alamin ni ko ah nijaay lii day moom lu am solo la lii day mbégte ak kontaan la jibi ne ko waaw kontaan lool sax Fatima mi ngay wax nii Fatima war naa mën a gis règle ki kay kii kay war war naa mën a toll ci sëy lii kay bu ci am dara lay jaaxle incha allah yow nel tekk di déglu man dinaa woo Fatima waxtaan ak moom balaa ma waxtaan ak moom nag dinaa waxtaan ak baayam ba noppi su ma waxtaanee ak waxtaan ak ndeyam taaj leen waxtaan ak moom ba noppi loolu woo Fatima waxtaan ak moom loolu kay sotti ceeg def ci la amul benn jafe-jafe noonu jibi daal di jug dem kontaan lool nag jibi ndekete li ñu ne ci kër gi yëpp moo ngi am xemmem lool ak cofeel ki nga xam ne mooy Fatima noonu nag la ki nga xam ne mooy jibi daal di gaawantu jël téléphone am woo ki nga xam ne mooy Habib di rakkam te ñoom ñaar ñoo bokk ndey bokk baay mu ne ko Habib man de damaa bëggoon soo wàccee rek nga ñëw sama néeg nga ànd ak may sa soxna dama leen a soxla Habib na ko amul benn jafe-jafe tey nag dinaa guddee wàcc mais lu ma guddi guddi rek soo ñëwee man dinaa def si mu ne ko amul benn jafe-jafe noonu nag la ki nga xam ne mooy ndumbe daal di génn ndumbe daawul dugg sax néeg may lu bari waaye jour boobu dugg na fekk jànq bi mu toog mu laaj ko ana may mu ne ko may dafa xëy tey mu daal mu daal di génn. bi mu génnee nag fekk Fatima toog ci bunt bi noonu yor kayam di jàng mu ñëw toog dell ak moom ne ko ah sama doom Fatima noo def yaa ngi ci jàmm commencé di jàmmante jàmm sante moom na ko njàng mi yaa ngi góorgóorlu bu baax Fatima tàmbali di ko xool nanu waa ah tante Ndumbe moom luy problème moom kañ la commencé <laughs> di am ak man jàmm ji nii ak kaf gu bari gi ki nga xam ne bu ma rombaan nuyu sax dama ko def day romb rek jàll amut man soxla mais bii changement gën a gaaw. dal ne ah waaw yàlla baax na xëy na nit soo nekkee ci dara ba mu yàgg nga gis ne loolu nga nekk gënul am na am nga droit changer jël beneen yoon bu gën boobu tàntandu mais xëy na loolu moo ko dal Fatima daal di wax loolu ci xelam xale bu yaru la waaye ku intelligent la kuy bàyyee xel kër gi ak liy xew ci kër gi yëpp moom Fatima noonu nag la ndumbe daal di demee nekk ci yittem noonu nag ki nga xam ne mooy Habib jour boobu dafa guddee wàcc mais ci ëllëg sa ba ci ëllëg sa maanaam ci lendemain bi dafa teela wàcc ndax mën a gisante ak magam bi nga xam ne mooy jibi te daf koo soxla moom ak jabaram ñu daal di teel a wàcc. comme que jibi daf koo soxla te jibi kilifaam la moo tax mu delloo ko cër boobu daal di teel a wàcc bi mu wàccee presque ay 18 heures yooyu daal di ànd ak jabaram ndax ñoo bokk benn hôpital bi ñuy liggéeyee ñëw fekk jour boobu sax jabar ji moo ay woon mais jànq bi moo ko doon toggal. moom jànq bi nga xam ne moom mooy toggal may ñoom ñaar nag bu ñu bi ñu wàccee ba ba jekk daal nañ ñëw nekk ki nga xam ne mooy jibi daal di koy nuyu noonu jibi daal di leen entré fekk mu doon leen xaar ndax xam na ne li mu ko soxla moo tax ñoom ñu teel a wàcc bi ñu ñëwee ba daal di toog jibi na leen ah maa ngi jéggalu de xam naa ne wax dëgg yàlla sonal naa leen déplacé naa leen yàqal naa leen aussi seen liggéey Habib na ko non amul problème. jabar ji itam ne ko ah amul benn jafe-jafe yow moom wax dëgg yàlla ba ñu soxlaa dañoo war a bàyyi lépp lu ñu jàppoon pour mën laa wuy si jibi neen waxtaan wi nag waxtaanu jàmm la waxtaanu mbégte la ak itam yokkute ci famille bi ak ndam itam ci famille bi ndax am na loo xam ne su amee rek yokkute la noonu Habib yëngal bopp bi mu ne ko waaw sama doom bi nga xam ne mooy moor dafa tolloo ci war a am soxna noonu ñu ne ko waaw loolu kay farata sax mu ne waaw kay léegi nag fan yii yëpp maa ngi ci doon waxtaan ak yaayam ngir ñu xool mu xool ku mu bëgg ñu man ko koo may. waaye nag démb dama ci waxtaan ak moom ñu woo ko man ak yaayam waxtaan ak moom mu wax ñu loo xam ne dafa sedd suñu xol lool ndax bi ñu waxtaanee moom mu xamal ñu ne moom it gis na ku mu bëgg noonu may ak Habib yëpp daal ne alhamdulilah loolu kay lu baax la yal ci yàlla def barke. mu ne bi mu ñu waxee loolu nag te ki mu bëgg itam nekk mbokk nekk itam ku ñu jege ci laa ne alhamdulilah lii xel mu dal la léegi nag moom nee na seen doom Fatima la bëgg bi nga xam ne wax na loolu rek ki nga xam ne mooy Habib ak jabar ji daal di xoolante mel ni wax ji daf leen a xaw a choqué noonu Habib ne ko Fatima man sama doom mu ne ko waaw Fatima sa doom mu ne ah daal yëngal bopp bi daal di ne waxul dara. noonu ki nga xam ne nag mooy jibi ne ko comme dafa bëgg Fatima te Fatima xale la xam naa sax moom ci njàng xam naa itam njàng mi am na solo ndax jàmbaar la ndax fi mu toll nii ren ji la war a def BFEM ren war a def BFEM léegi nag comme dafa war a def BFEM lépp lañ xool na lañ koy organiser ba nga xam ne li ñu bëgg nañ ko am su ko defee ñu mën a xam kañ la ñuy mën a jàpp jour takk bi. ginnaaw boo xamee ni ñu ñëpp déggoo nañ ci léegi nag Habib maa ngi lay déglu Habib comme mooy kilifa gi mooy góor moom mu war a njëkk a wax jabar ji Habib daal ne ah li nga wax day rafetlu naa ko lool ndax ki nga xam ne mooy moor dafa war a am soxna wax dëgg yàlla man mii baayam laa tey buy am soxna war naa koo dem ñaanali ci rawatina nag mu bëggee ko foo xam ne ci kër gi la. waaye nag ki nga xam ne mooy Fatima am na ci ay mbir yoo xam ne xaw na ma cee jaaxal ndax Fatima itam ay atam daanaka yaakaar naa ne tollagul fu mu war a mën a sëyee xanaa ndax fukki atak juróom la am loolu nag xëy na yow yaa ma ci gën a xam dara ndax yow yaa jàng mbirum diina pour man teel na pour mu sëy beneen bi itam mooy moom Fatima itam comme dafa war a def BFM ren faw mu àggali njàngam. nan la mën a boolee sëy ak continuer njàngam tamit dana compliqué beneen bi tamit mooy bàjjanam moom laa féetale lépp ci wàllu woowu su ko defee loo ci man di waxtaan rek nga waxtaan ci ak bàjjanam noonu ji bi daal di ne cell ba mu yàgg mu ne ko ah dégg naa li nga wax mais bu dee Ansu Fatima moom Fatima maa ko tudd maa ko tudd xam naa ñaata at la am xam naa ne fi mu fukki at ak juróom yi day tegal war naa mën a am boroom kër ci charia waaye teewul mën nañ koo may mu jàng ba am bexem incha allah bu ko defee ñu door a jublu ci sëy bi waaye itam su dee waxtaan wi itam lu jaadu la ndax moom nday mbil gi waras naa waxtaan ak moom comme ni ma laajee Mor mu ne bëgg na ma laaj Fatima mba xam bëgg na waaye bu dee bàjjan gi nag moom xam naa ne yow yaay waxtaan ak moom rek ndax njaboot gi lépp benn la ndax boobu moom jibi xam na bu baax ne bàjjan Faati daf koo mere noonu ki nga xam moom may Habib ne ko ah bu dee bàjjan Fatim moom man mun maa wax ak moom parce que dama koo jox kilifteef gépp maanaam Fatima laa ko féetale léegi moom soo waxtaanee moom moom lu mu wax rek man baax na d'accord naa amul problème noonu mu ne ko may may na ah man kay awma may wax man moom vraiment damay sëy rek sama boroom kër mooy sama kilifa su xool lu mu xool ba jàpp ne baax na rek man danaa ci ànd ak moom noonu jibi daal di insister ne ko ah waxal rek yow yaayaayam yaayam am nga ci kàddu noonu may ne ko non non loolu moom affaire famille la affaire góor la comme yéen kilifa wax ngeen rek man amal si teg moo Habib daal lu mu gis ne moo baax rek baax na surtout bàjjen fàtte boobu moo wax daal moo ci ëpp solo sax nag ak ki nga xam ne mooy ndey mi léegi muy Fatima ñun tamit bu ñu demee danañ waxtaan ak moom après moom lu mu wax rek amul problème. noonu jibine leen jërëjëf kontaan naa nag wax dëgg yàlla ndax li wane na ne jox ngeen ma cër. ndax waxtu wi nga xamee ñëw ngeen xam naa du seen heure wàcc beneen bi itam mooy bi ma leen waxee itam gis naa ne seen côté moom disponible na kon li ci des incha allah man itam dinaa ci dox la ma war a dox noonu ñu ne ko baax na noonu la Habib ak soxnaa May daal di génnee dem dugg seen néeg toog May na xaw a jaaxle ndax jàpp na ne Fatima moom waxtu wi waxtum njàngam na waaye du waxtu sëyam waaye nag moom itam bëggul hypocrite bëggul wax fii wax fële moo tax mu noppe rek bañ cee wax dara. noonu nag Habib moom it xaw a jaaxle waaye mu ne na bàyyi lépp rek ci loxo bàjjen Fatima ndax xam na ne bàjjen fatimaa moom ku am fulla la te ku bëgg itam may euh, Fatima la te responsabilité bi da koy jël ba mat sëkk. waaye ji moom bi mu waxtaanee ñoom ba ñu génn rek jabar ji ndumbe daal di dugg si ndumbe moom li ñu doon waxtaan yëpp moo ngi taxaw ci ginnaaw bunt bi di déglu bi mu duggsee see daal di fekk ji toog mu ne ko dem nañ ji bi ne ko waa dem nañ mu ne ko loo wax ak ñoom nag. noonu jibi daal di koy expliquer ne ko ah ñoom day wax nañ lii ak laa ak la mu ne ah dégg naa kay am na lu ma ci for sax ndax dama doon dugg si dégg ñuy wax jibi ne ko da nekkoon di déglu xanaa mu ne ko non ma damaa dégg rek mu ne ko ah kon baax na mu léegi nag loo ci xalaat mu ko ah jibi du lii laa doon waxti fii mu ne bàjjan Fatima kilifteef gépp moom lañ ko jox faaw nga déggoog moom jëm ko woo rek jibi ne ko ah loolu nga gis mu ne ko waaw jibi di woo Fatima di ko woo téléphone di ko woo woo na ko appel yu bëri bàjjan Fatima nangu koo jël ba nga xamee ni coupé na bàjjan Faati yi xolum mbokk daal di koy jàpp mu daal di koy woo noonu jibi daal di jël mu ne ko ah dama lay woo nga may bañ a jël mu ne ko du loolu sax jibi yow danga danga da ngaa da ngaa nekkul kilifa dara da jekk ci kilifa na nekkoo kilifa jibi ne ko waaw waaw maa ngi maa ngi jéggalu léegi wax jooju te nga génn ci loolu dama lay leneen lu bokkul ak loolu su paree mbir moomu ñu waxaat ci waaye li ma lay doyee moo gën a nekk farata. noonu la ki nga xam ne mooy ji bi daal di expliquer ki nga xam ne mooy bàjjan Faty mbir moom wax ko mbirum doomam jooju di moor yëpp ak Fatima bàjjan Faty ne ko loolu teg ko ci suuf loolu mënta nekk Faty sama torondoo day jàng man lañ ko féetale eur bii sama kër la ko waroon a fekk man maa ko bàyyi foofu ci kër gi day jàng te bu tollee ci sa itam sama doom Ibrahima laa bëgg mu takk ko noonu jibi ne ko waxoo dëgg. loolu du am Ibrahima du takk faati mukk ki nga xam ne mooy sama doom moo koy takk yow nag sama jàmmaarloog yow nag moo ngi door a door nag noonu nag jibi daal di ba bàjjen Fatim tamit daal di mer daal di coupé téléphone bi ci yàlla mu nekkoon lu doy waar lool. fi leen yemale épisode 3 bi ñu jox leen di daje épisode 4 bi su yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. Abonnez-vous pour ne pas manquer des histoires et films très intéressants. Scène Production Islam Sakanam.